فقال لهم رسول الله سمع الله لمن ربنا pour am ko loolu rek mooy tabaski mm-hmm. ñu ngi ciy profité kon di wax baal leen ñu àq yàlla nañu yàlla boole baal jégal ñi nga xamee ni que moom mooy Sénégal yàlla teg ci loxoom comme na mu ko mës teg te am nañ ci njort bu baax a baax a baax a baax nag su ñëwee nag euh, Masalikul euh, dañuy dañuy dañuy bég ndax euh, fii tante la woon tante bi yàgg lool ba tey lii ñëw. ba télé bi ubbee ba léegi di ko def direct. sant yàlla bu baax a baax bu ma nekkee ci biir Massalikul daal dafa am lu muy yëg. luy waral mbégte bi. sant buy baax a baax di gërëm Serigne Touba. jërëjëf vraiment kontaan nañu lool.